madame Awa Diop Ndiaye présidente des femmes Mimi département bu Tëngéej Ahmad Kebe, coordonnateur communal de Sangalkam ak ñenn nañu bokk ci ñoom ñoo fils de ci commune de Bambilor nous madame Sow Diarra militante du mouvement Bidi di Mimi te dëkk ci quartier Ndiassane bu Bambilor Nous fekk fa que Mohamed Lamine Barchi coordonnateur départemental Mimi la eh, fii de Bambilor ak itam le délégué de quartier ba ak it nag ñenn ña taxawaayu jigéen ña ca boo boole solos tànk yooyu nag moo di wéy ci ndigalu euh, ki nga xam ni moo di présidente Aminata Touré mi leen sant ñu euh, massifier euh, mouvement bi di mi ngir nag mu gën a mën a law ci askan wi mbooloo mi incha allahu rabbi mën a gën a wàll si waxtaan nag yaatu woon na lool naka la coalition bii di mi mi fas yéene jàppale kuréelu jigéen ña ba ñu am ay kayit ba ndimbal la man leen ca fekk ak itam nag nag yan pexe ak i nisër la ñuy lal ba seen liggéey mën a gën a jëm kanam kuréelu mbootaayu jigéen ñu nag rafetlu lool macha allah nisër boobale wax na ñoom day fas na lu yéene ànd ak ñoom ci liggéey boobale ba mu gën a yaatu soxna jaara madame Sow ak it nag soxna Binta Ñang euh, bokk ci mouvement bii di Mimi seede fa ñàkk caaxaanug wax fa dëgg yàlla madame Awa Ndiaye Diop ne nag fas nañu ko yéene jàppale te itam moom nag soxna soosule kuy jàppale askan wi la ci seen yitte ak sax seen i tawat ñu teewlu leen. man la soxna jaare dëkk Mbambilor bokk ci Mimi 2024 ànd ak tey Awa Diop njaay suñu coordinatrice tey ñu ñëwoon seet si maasu bugguma jàllo maasu Ndiassane ñëw seet si leen tey di waxtaan ak ñoom ci développement ak politique bu sincère Awa Diop Ndiaye nag li ma xam ci moom mooy. man xajuma ci caaxaan moom it loolu laa gis ci moom man waxi Mimi Touré waxuma ko instant yi waxi Awa Diop Ndiaye laay wax ndax moom laa xam moom laa gis li muy def mu may woo may dem fu ma oo damay dem ndax fu ma o fu ne doolem la fay demee yërmande moo ko fa yóbbu ak dimbali njaboot dimbali xale dimbali njaboot jigéen moom képp ku ko dimbali sa bopp nga dimbali te képp ku dimbali jigéen yàlla moo lay fay coono jigéen moom man lañ koy laaj coono jigéen ci man la wëndeeloo toog moo tax képp kuy woote pour dimbali jigéen rek dama ciy dox waaw Awa Diop Ndiané li nga bëgg yow yow rek yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defaral yàlla li fi nga bëgg yegg yàlla na la fa yeggale. moom da lay woo di la nemmeeku benn jour mu woo ma mu ne ma Binta na nga def dama la gëj a dégg ma ne ko man de dama feebar ma ne ko man de Ndiaye dama feebar. mu ne ma danga feebar ma ne ko waaw mu ne ma dem nga hôpital ma ne ko déedéet mu si saa si madame Ndiaye yónnee ma xaalis bu takku ne ma demal hôpital ma dem hôpital bi ma demee ba médecin bi xool ma wax ma analyse yi ma def war a def war a mot fanweeri junni man dama génn rek si hôpital bi rek tudd yàlla ma ne moom bu yeeboo man ma waajal sama bopp ma toog toog toog lu yàgg mu jékki-jékki rek woo ma ne ma lan lan la wax moo ko ko mu ne ma lool du dara Binta mu ne ma loolu du dara faju moo gën fi ma toog si saa si mu yónnee ma lii yëpp mënu ma ko woon man nii lii yëpp mënu ma ko woon kon dama koy sant moom man su ma doon julli damay jël chaise toog di julli mënu ma woon lii yëpp may def ñu pare si analyse yi ñu waxaat garab yi te xam nga ne garabu toloo kenn waxatu ko mu ne ma xoola lu ma wax rek mu ne ma yow daal fajul ba wér rek mu ne ma fajul ba wér kenn amul yàlla moo faj am fajul ba wér kon moom su ma su ma diggee lum ma digg man dinaa ko gëm léegi nag ba léegi nii ma ak moom ñoo ngi si ba léegi moo may nemmeeku di xool ndax maa ngi lekk maa ngi naan te su ko neexoon du ko def su ko neexoon li mu def nii tey du ko def waaw su ko neexoon du ko def kon man su nee day jàppale jigéen ñi su ne day jàppale jigéen ñi si seen kayitu groupement si seen financement yooyu mun naa ko gëm dama koy gëm nee naa ko yoon bi ñu jëm même bu dee dafay am ay dëj ay pont dañ koy doxandoo di dem waa parce que li nga def dafa rëy yow danga ma dimbali yow ki nga dimbali yaay la kon soo dimbalee yaay dimbali nga àdduna dimbali nga njabootam xam nga tey ji mënoon naa tëdd mais tëdduma gannaaw yàlla ak yonent bi yow la sa jëmm jii la kon dama lay sant di la gërëm kon man gëm naa ne yow loo wax da nga koy def man gëm naa la man dama la gëm te yàlla tax parce que da nga ko wane te da def li ngay def buggoo leen ma so tey jii sax lii ma wax di yow buggoo sax ma wax ko mais nit bu la defalee teraanga da nga koy wax bu nit ñi toogee dangay wax teraanga bi mu la defal kon nag yow li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal si barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi yàlla na lay dégg ne Lamp Fall soorool ba sa Touba ñëpp di la dégg waaw di la dégg ndax lii nga def nii lii yow daal dan lay bàyyi ak yàlla rek dan lay bàyyi yàlla te ju topp sa ginnaaw te dal dama lay wax ne man de ciment laa ni ma la ko waxee benn yoon laay tooy benn yoon laay tooy ciment laa te dinaa la wan na man damay liggéey te damay ànd ak yow ñuy liggéey tey jii da nga ne ma woon bul ñëw toogal da nga man la dinaa ñëw waaw parce que damay sant yàlla lii nii damay sant yàlla parce que am na ñoo xam ne ñoo ngi raam dama leen di romb ñuy raam am ñoo xam ne ñoo ngi tëdd am na ñoo xam ne ñoo gisuñu tey ji boo fi ma fekk boo ma fa jëlee woon jul woon tey xaw ma xaw ma kon ñun ñëpp soxna yi nañu góorgóorlu ñu jàppoo mànkoo ndax fii góor gu fi fal jigéen ñaa leen fal kon ñun jigéen ñi war nañu mën a góorgóorlu jàppante suñu biir ñun tamit ñu fal suñu moroom mu xoolal ñu topp si jàppale ko tey yàlla tax ñu ñu ñu ubbi suñu xol yi xool ubbi suñu xol yi xam ne xoolal ñun ñoo fi nekk ñun jigéen ñi ñun ñoo fi nekk tey jii di réew mi bu baaxee jigéen ñi la parce que moom jigéen ñi lay jàppale ak tout tànk yi kon bu jàppalee jigéen ñi ak ndaw ñi rek xam nga ne kooku jàppale na Sénégal kon ñun ñëpp nañu góorgóorlu jàppoo manko liggéey. gannaaw soxna yooyu nag Mamadou Lamine Badji départemental euh, coalition Mimi euh, nek fii nga xamante ni euh, Bambilor dalal na leen rafetlu seen teewaay fii ci Bambilor ak itam engagement bi ñu am ngir gën massifier coalition Mimi ni leen ko seen présidente madame Aminata Touré santé ñu teewlu Mamadou Lamine Badji ci micro Bambilor Actu. Euh, Malla Mohamed Lamid Lamine coordinateur départemental département de et tey maa dalal euh, suñu naataam président des femmes départementales madame Awadjoum Diaye. et tournée binga nga monko Yagadef, département de Rifix. semaine balé passé mu Barni. yoon Bargny tey commune Bambilor et ci massification binga nga Euh, la coalition Mimi 2024 moom la tàmbalee ci waajal les élections législatives yi nga xam ne mu ngi ñëw suñu kanam euh, tey vraiment ma kontaan aussi sama naatambo bi nga xam ne moo nekk sama wet mooy amat nekk coordonnateur commune Sangalkam nga xam ne yàgg naa ànd ak bi bi muy metti dëkk bi di metti man ak moo ñoo doo ànd commune ba commune vraiment di implanté Mimi 2024 dans le département de Rifis. Lolo vraiment c'est une fierté tay ma koy gis sama commune bi. Euh luñu ñu lu ñu lu gis man ak mom pour bu bala Mimi 2024 implanté au ci département bi vraiment et loolu mom vraiment dam ko koy remercier dox nañ heure bu nek uniquement pour ñu mëna a implanter Mimi 2024 dans le département de Rifis. Lolo vraiment c'est une fierté tay ma gis leen ci sama commune ci massification bi rafetlu aussi madame la présidente ci taxaway bi nga pour inch'allah janvier le département de soit massifié madame la présidente Aminata Touré contente euh, la directive la massifié 2024 national régional départemental et communal vraiment je vous remercie et celle de Madame la Présidente. Ahmed Kébé coordinateur mouvement Mimi commune bu Sangalkam rafetlu dalal Bi, l'ancien coordinateur départemental dalal wax na nag seen ite dal ala kulli xaal mouvement beaucoup ci parti yi nga nous ni ñooy ëpp taxawaay ci département bi ñu teewlu ko ci micro Bambilor Actu. Mangi ngi tudd Ahmed Kébé di coordinateur communal mouvement Mimi commune bu Sangalkam. Euh, ñoo ngi wax suñu coordonnateur départemental Mousse Badji di rafetlu dalal bi mu ñu dalal di nuyu bu baax suñu présidente des femmes madame Awa Diop Ndiaye parce que ñoom ñaar ñooy suñuy suñu suñuy kilifa fii ci département bi suñu tànk fii comme nu mu ko waxee ñun depuis ñu génn ci élection présidentielle yi nga xam ne si la ñu fale président Diomaye ñun dañoo concentré wu ci suñu parti muy mouvement Mimi dañoo nekk si massification pour fexe ba suñu parti bokk ci parti ci ñaari parti yi doole fii ci département bu Rufisque loolu si la nekk guddi ak bëccëg suba ak ngoon ci loolu tey moo ñuy indi woon fii ci commune bu Mbambilor ñu ñëw fii doon fi fekk si ay groupement euh, féminin yi jigéen ñi expliquer leen lan mooy projet madame la présidente ak lan mooy jubluwaayam ak lan mooy yéeneem Euh, di leen remercier bu baax ñu am fi nag lu kawe suñu njortu di remercier waat bu baax baax coordonnateur monsieur Badji ak la présidente Awa Diop Ndiaye. soxna Awa Ndiaye Diop présidente des femmes Mimi département de Rufisque ne seeni tank dal wax fa yalla mo don dal daal yeggi askan wi rawatina jigen ñi ni sër yi présidente Aminata Touré ni sëral le ne nak mi ngi santaat yalla bu baax baax ndax sur les douze communes di fukk commune ak ñaar. am nañu fa euh, ñu leen fa euh, toogal te nag nee na day incha allahu rabbi fas nañu yéenee paase foofu ndax dañuy gëna a lawal seen liggéey ñu teew lu soxna Awa Diop Ndiaye ci micro Bambilor Actu. Awa Diop Ndiaye présidente euh, départementale du mouvement Mimi département de Rufisque ma taxaw nii ak sama coordonnateur départemental Lamine Diémé taxaw ak Amath Kébé. Euh, responsable communal bu Sangalkam may gërëm Lamine ci dal gim ñu dalal ndax tay moo ñu dalal pour ñu ñëw ci département bi dox mbirum massification massification moy dajale nit ñi jëm leen waxta wax ak ñom jaay vision wu madame Aminata Touré présidente du mouvement Mimi vision bi mu tek pour taxawul jigen ñi mission bi mu am pour jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi taxawu leen sëgg ci seen développement sëgg ci seen avancement ci loolu la ñu taxaw tey actuellement bi ñu ñëwee suñu naataango bi nag euh, maam Jaara Sow moom moom la ñu seet si woon ak ay responsable groupement yu ñu àndal ñun nag si suñu kàttanu bopp ñoo ko ne woon jarul ngay woo groupement yi ndax boo leen woowee dina bëri te waxaguñu xamaguñu leen bu baax dañu préféré jot seen responsable yi wax ak seen responsable yi wax ak ñoom vision bi nga xam ne moo ñu tax a jóg bu ñu waxee ak ñoom ba ànd ak ñoom ci vision bi ñu dem au niveau de leur base ñoom ci seen groupement yi ñu waxtaanee ko fa comme ça ñu ñëw ñun ñëpp ñu ànd def ko benn massification bu mag jàkkaarlook ñëpp xam ne ñii nii ci mouvement Mimi bi la ñu bokk ñu ànd ñun ñëpp liggéey liggéey bi nag du tey lañ ko tàmbale tàmbale nañ ko lu yàgg yàgg depuis bi ñu jógee ci élection présidentielle yi ba léegi ñun mouvement Mimi bi ñun le département de Rufisque tooguñu benn yoon presque mën naa chaque 15 jours dañuy def sortie dem ci mouvement dem ci benn euh, commune. chaque 15 jours dinañ dem suñ demee ci benn commune suñ doxalee commune ba mu ñu dem ci village yi fu nekk nag ñu ngi fay dem tey jii réussir nañu am sur les 12 communes réussir nañu am responsable Mimi ci 12 communes yëpp. sur quelques villages yu ñu wër réussir nañ fa am tamit ay responsable te ñu ngi continuer di dox dox bi dañu ñaan yàlla balaa ñuy déggaat si beneen élection douze communes yëpp villages yi communales yi ak yëpp ñu am fa ay responsable département Rufisque te incha allah yàlla dinañu ko may incha allah liggéey rek la liggéey kese la du dara amul secret amul dara liggéey kese la te bu ñu liggéeyee defee ko ni ñu ko war a defee ànd ak dëgg di wax dëgg di dox ci dëgg yalla dinañu may ñu am responsable communes encore di remercier jigen ñi nga xamantene ñoo dalal échanger ak ñun di wax ak ñun ñu leen di remercier. yalla subhanahu wa taala day mo wax ni nga pay lay xaar kon mouvement mi ci département li y liggéey yalla na yalla lépp qui rabbi ci ak